yalla def na nag Dawda yalla wour sagal ko mu euh, mu ndeka start ci woodam lolou mbekt la ci man bo xam munuma ko wa wax na suñu politique bi dina yombal suñu politique bi te dina dimbalé nit ñi torop torop torop torop ñu ko gërem di gërëm doonu ci for their kind gesture. tay bes bi du besi presiden jamela, président Jammeh ndax ko jox. bési ñi jaayoon seen lali campagnol ko ba win tey ñoom ñoo moom ndam bi Souleymane moomu ko dama kontaan tey dama kontaan Modou Bousso ak comité am ñoom moom bés bi ak développement comité Kiyaman bi jiiba ñoom ñoo moom bés bi kontaan naa Ramatulaay waaye dele la ñaawa ñaaw waa dinaa ko wax yow miy taxaw sa xalaat bokk na si ndax Souleymane bokk nga si advice advice ami. man dama kontaan su ma rakale sa mbokk su defee dara. si gannaawam nga gis mu def loo xam ne saka jigéen ndox lay soxla yoo xam nga ñun ñu ngee liggéey jigéen ñi jigéen luñ gën a soxla mooy ndox l'islam bi tamit ndox la soxla man naa ami man dama kontaan bu kontaan em parce soo amee raka mu ñëw taxaw jiit njiiti réew bi ko maire bi jàppale ko ñëpp jàppale ko yow sa bopp nga jàppale ko te man campagne naan naa ko waxoon naa lu ma waxoon moo ñëw ni ndànk ndànk te ñu bëri mu si kanam ma ngi laa gërëm ñëw it ma ngi laa gërëm jiyaat ku nekk jiiti réew koo gërëm ok yow yow yaay development chairman ah ñu gis ne liggéey bi si development labo ka. kon nag lo am pour sa askan bi parce que ndox dafa seer ñuy ni la ndox sa bunti kon nag naka lan nga wax askan bi naka la ñoo toppatooyee pompe yi la ah, kansilo Souleymane defal leen alamin ma ngi sama luut meyo di nuyoo sama honorable Seyni Jeyte di sama yaay kompini ak ñu mak andal, di nuyoo suñu yaay bu baax Ami Jaata because lu muy wax ni tey sama xol bi jóg na jóg boo xam ne xamatuma li ma nekk ñu bañ lal da baatu boobu dafa am fu mu bàyyee ko de waaye li may ñaan si nit ñi Souleymane def na warugalam fu ñu ko séntu woon gis nañ ko fu ñu ko yaakaar woon yaakaar bi fees na ndox mi ñun balaa lii ñëw toog nañu waxtaan naka la ñuy njëppandikoo naka lañ koy toppatoo naka lañ koy téye ba mu jariñu suñ jógee ko ah, si lii nga xam ne mooy développement ah, programme bi nga xam ne si jaamu ngeen fanaan lañ nekk bi léegi programme bi dafa am solo dafa am leneen lu ma ñambaasaar si jaamu ngeen fanaan mooy ne business bi business segment bi dama dem waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi jaay marché ci Pagaras président Jammeh ak gouvernement bi spending bu bari pour samp boobu noonu maanaam jaayukaay jën bi dem nag waxtaan ak jigéen ñi waaye jigéen ñi wax ma ne ñoom ñoo yore kaddu gi si dëkk bi kon rek ne la ñu setaan loolu noonu buñ dellu see rek nga ñaambaasal ma xam nga jigéen nga mm. xam naa dañ dee dem marché léegi-léegi jën yi seer ak yooyu noonu ñu wax fa rek ne marché bi jàppale na leen bu baax a baax a baax ne seen waxtaan jàmm ngeen fanaan mbooloo mi ñoo seetaan ñu leenaa dalal fii si baa Bakoteh bi ah, suñ programme bi tey moom dañoo génn rek waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñoo yore ah, lekk yeeg ah, business bi si biir Gambie bi yaa salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa booy nag moom dañ génn rek GRTS dañ rek waxtaan ak ñi nga xam ne mooy sun yaay yi sun mag yi sun raka yi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yëngu si business naka la jigéen ak business. kontaan nañ ci seen affaire. gis nañ ne daal suñu liggéey bi sànniwuñu ko daal alafudi parce que yéen a ñoo liggéeyal te yàlla tamit mu leen a jàppale ku nekk yaa am sa palaat boo xam ne yaa ngi sa bopp lii mooy suñu métier amuñu beneen métier lu dul jaay jën waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla parce que ñu ngi sutural suñu bopp di leen mën a jàppale ci yéen ñii suñu doom waaw lii ko caaxaan ñu ko téye ñaari loxo. parce que daanaka bu ñu starté di liggéey ku nekk alhamdulilahi rabbil alamin yaa ngi ciy faj sa soxla di toppatoo sa njabooti yi sa jëkkër liggéey na liggéeyatoo nga ngay jàppalante. yaa booy leneen li si am solo mooy ne ñu ne ñu jigéen ñi ñoo amee kaaraange réew mi mbaa mbaa parce que président Jammeh daf dee woon ne moom jigéen ñi ñoo ko soxal naka nga gisee président Jammeh ak jigéen ñi si business. président Jammeh ñu ngi ko gërëm bu baax a baax di ko sant. ak ñi topp ci moom i tamit maanaam comme yéen ñi ndaw yi ak mag yi nga xam ne moom ñu ngi féetoo si booram ñu ngi ko sant ngir yàlla. suñu borom réew mi dafa ne ñu takk suñu digga liggéey moo tax ñu takk suñu digga liggéey te liggéey bu ñu liggéey nii liggéey bu ñu jëriñ la ndax lu mu bon bon ah ñu ngi ciy fay suñu school doom ah ñu ngi kër yi ñu ngi def lu nekk moom ñu yokk ñu yokkali bari daal. li bari ñu ngi yokk ndax fu mu nekk nii jigéen boo gis fii gis nga lii ñu fi nekk yëpp ku ci nekk boo fajaree yaa ngi ñëw di daw rek guddeeg bëccëg ndax liggéey te liggéey moo ko yor te dana yoru ko nelaw yoru liggéey rek ko ko yor waaw boo liggéey am lu nga bëgg boo liggéey na doo am loo bëgg waaw. naka nga gisee ndaw yi Gambie léegi asuma ñu jigéen ñi. ñu jigéen ñi fu mu nekk nii ñu ñu leen di ñaanal ñu ngi dolli seen ñu ngi dolli seen xam-xam ak seen liggéey seen kattan jigéen ñi xale gu jigéen ñi léegi toogatuñu kenn na la watul ñëpp a ngi ci liggéey ñëpp ngi ci takk dënn takk seen diggale di liggéey di dimbali seen waajur yi di liggéey di dimbali seen boppa waaw ku am jëkkër yaa ngi koy dimbali waaw ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey xale yaa ngi liggéey daw guddeeg bëccëg fii ci marché bi dafa naan xale yi ci ëpp doole xale jigéen yi bëri ñu ngi di liggéey waaw guddeeg bëccëg balaa maa ñu fekk xale yi bari ñooñu ba raawoon di liggéey kon nag loolu sant yàlla la. naa gisee marché bi baa baaxoote fii. marché bi baaxoote fii ginaaw sant yalla sant yoon bi sant president Jammeh ndax li ko la ko sampal war nga ko sampal ba fu mu nek suñu jeen yakotul am nañu galaas am nañu jeen ah asige mi nga xamne moy ministre bi ñu ngi ànd léegi léegi gis nga moto ñetti moto mo fi taxaw léegi jóge Bur Fóot gal gi nga xamne mom lañu la fi andel ni ñu yebul jeen yi ñuy jaay waaw fu mu nek ne li yeb jeen la fo yermu rek jeen la. ñu ngi sant yàlla di sant borom réew mi ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu bëgg a réew egg yal na ko fa yàlla eggale fu mu bëgg réew mi egg yal ko fa yàlla egg yal na ko yàlla may jàmm dàqal ko seytaane lafal ko cat njabootam yal nañ toog ba barke ndax ñun jigéen ñi tiitaru nañu ñun jigéen ñi fu mu nekk ni jigéen ci nekk ma yaa ngi yëkkati mbagga te lu ko war a président Jammeh ko waral moo ko waral moo tax fu mu nekk ñun ñëpp ñu ngi tiitaru ko ci nekk yaa ngi yëkkati loo mënu woon léegi mun nga ñetta ci nguur yaay jàmme loo mun woon mun nga ñett léegi ba si ñeent kon nag ñu koy gërëm di ko sant ñun jigéen ñi ñun jigéen Bakoteh wile ñu koy képp kuy jaay jën nag ba marché Serekunda ñu ngi koy gërëm di ko sant. naka nga gisee business ay jigéeni réew mi. business bee jigéeni moom ah sant yàlla bu baax moom ñu ngi si yëngatu di si góorgóorlu di faj si soxla yi waaw fi mu nekk nii kañ sant yàlla bu baax si business bi waaw. looy digal ndaw ñi toog defuñ dara. xanaa ñu lu génn a def ni ñun liggéey faj seen soxla yi daal waaw parce que jigéen liggéey moom yaaxu dara si jigéen waaw. waaw ñeneen ñi dañoo tànnantu loole naa wax. ah xanaa ñu góorgóorlu parce que fi mu nekk nii xaalis moom dañ koy liggéey waaye di duñ ko lijjante waaw soo génnee nga liggéey fas jom da ngay jëmale mi kanam rek waaw parce que li nga am sa bopp nga koy def doo ñaan kenn yaa ngi faj sa soxlay faj sa yeneen soxlay sew yëpp si kér bi waaw nekk sa kenn du la xamal dara. am nga ak amuloo kenn du ko xam waaw yaa ngi liggéey waaw. jërëjëf ndaw si loolu noo si xanaa di sant yàlla di gërëm suñu yaay compagnie bii nii mooy xadi naka xadi géey ah business ñu ngi si kanam ñu ngi jaay ndànka ndànka waaw business am na solo waaw ah, am na solo kay di bu ma nekk lii moo dee dimbale suma yaay di jaay amee kër gi ndig jigéen ñi léegi ñoom ñooy liggéey ah. ñooy daan seen doole waa nañu nama góori bàllal